alhamdulilah alhamdulilah asalaamaaleykum euh, wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sayidi wa mawlaaya fadilatu cheikh al allaama maam alxaaji wa mawlaaya cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu cheikh al islam maa ngi lay nuyu di la jox na yow bi nga joxal ma ko mboolem ko fi xam naa man dañ ne naa taaliq waaye Cheikh Moussa dana ragal la daloon ñaari gumba yi daal ma dañoo dox forcer mbiig kenn ko wal mbiig gi bëri xool mu ne morom ki man soo bëri gis na la mu ne ko jox ma man tam ma mbiig moom mu jël mbiig bi yosam xool mu ne mëntam xool le naa de mu ne jox ma ma settani taxuma leeraat leera mu jëlee wal pour leeral bëtee dellu nam meloon mu ne moroom ki am leeral bu ne ko man li ma leeral doy waaye sëriñ dëgg-dëgg ñu leeralal doy na sëkk du taaliq wala taalil wala talxiis wala déedéet mën nañoo def barkeelu jaar fi jaaroon ndax ni ñii ñoo ñuy jàngal ci zahir ñoo ñuy jàngal ci baatin ñooy doomi maam alxaaji abdullahi mi tuddee jotaay bi tey waaye ñooy doomi maolana cheikh ibrahim sama waaji sama sëriñ maolana ustaz ibrahim mahmoud diop bi muy présenté baay radiallahu anhu daf ne baay huwa alfardu loolu kenn du ko wet ñu waaw d'accord mu ne najlul fard saadu zamanihi ba pale ne wa waalidu afraadin suma gaa ñu dugg nañ humu am jurmu zuhur kon ñi kenn ku nekk ci ñoom fàdd sang yi ñoom leen ziar bu baax a baax Cheikh Maam Alxaaj duggal nañu ci dëgg-dëgg Seydi Ahmada Tijaan radiyallahu anhu wakkal nañu cheikh ba boo dégloo ibnu arabi alxaatimi nga xam ne Baay wax ne si kashful baas ne ak li muy xam yàlla yëpp xamut borom xutbaanetul osma fi minaani ndax Cheikh Tidiane ñu ne daf daan toog rek di wayantu këram moom Cheikh daf daan toog rek di way naan ayyuhal mu'ridu anna inna aradaka minna law aradnaka ja'alna kullu ma fika yuridna yow mi ñuy dëddu di ñu wan gannaaw naan da ñuy daw da la da ñuy diingat ñun la neex bu ñu neexee ñu récupérer la def lu ñu bëgg a def si Ibnu Arabil Xaatimi bi muy présenté borom xatmi gii ñu ne te li ma kobos xam naa dina ci dikk ndax ci weer wi lañ ne muharram wa fi lmuharrami gada gawsan rachid xalifatan an ilmuhaymin ilmajid wa utiya zaka cheikhuna bi arafa xakaahu man xaqaqahu wa arafa أقيم بعد شهر وليالي من ارتقى إلى مقامه العزيز المنتقى مقامه المكتوم moom la bàyyi waxoon ibnu arabi xamu ko sax radiallahu taala an ma ne ibnu arabi bi muy présenté borom xatmiya ñu ne Cheikh Tidiane la doon wax mi ngi wax ne borom borom maqaama gi dafa ñuul ba mel ni xajarul aswad noonu la ko waxee ba pare indi xadis dane yonentu sa wax na ne xajaruloo aswad yaminullahi fil ard Cheikh Tidiane dafa ñuul Cheikh Tidiane dafa ñuul mu ne borom maqaama gi dafa ñuul comme gis ci bët dafa ñuul comme lii gis ci bët ni mel euh, sang hmm. euh, ñu ngi nii toog ci Dakar démb rek wax naa ko si benn jotaay ma ne bàyyi jar naa jërëjëfal ndax fii ñu ne ci Ndakaaru mbooleem ku fi ne tey xatta boo dee américain nga sax saalum saalum nga bëgg a doon ngir saalum saalum te wax na ne man li tax yàlla indi yàlla indi ma Dakar mooy pour ngeen texe rek bàyyi moo ko wax radiyallahu anhu ahlu Dakar ahlu dunia faqat mu ne Dakar niti àddina rek lañ wa ahlu salaamin niti lëndëm rek lañ wa ma saaqani llahu ilayhim illa li yanaalu saadata daareyn yàlla indiwut ma fi lu dul pour ñu am texeeg ñaari kër yi li anna zarratan min nafahaati tajalliyati almartabati tastagriqu kullu man ra'ana wa ahabana ndax benn pepp rek ci uppi ni feeñu waaye martaba wi dafay labal képp ku ñu gis ku ñu gis te bëggum waaye man wax ji xam nga lu ma ci neex tax ma koy indi mooy ca fin wu wax wa ahlu saalum kulluhum maqbuluuna wa mahbubuuna ala ayi xaalatin kaanu waa saalum ñëpp dañ leen bëgg dañ leen a nangul ak xaala buñ mën a ne illa man arada an na ma sëriñ bi bi muy firi li firi dégg nga kaana li cheikhi min karamati qawmi na ñamaas rek dal ci taabi ak haadi bàyyi karaama bi mu lim ci karaama Cheikh Tidiane yi mooy topp gim topp yonu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa te cheikhul islam alaaji ibrahim na jahaaji yoonu njub gi te waxoon nag gaana waa gëla góos ca Kumaashi ne buur ba ak ay dagam mbooloo ma ñëpp ña nga toog yarqubul huda di fuub lu jëmmi njub gi te moo ko waxoon daawtu rabbi an yaumma hadiyi kullal wara wa yahmaduna saay maa ñaan yàlla dégg nga ñu jubee si ñëpp jubee si suma njub mi ñu paree ñi sant ni may doxee di sant ni may jëfee loolooy jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass euh, wax na ne Maulana Seydi Ahmad Tidiane daaw tàggaloo ak gis yonent yàlla Muhammad ahanaam ndax lu tax doomam Maulaaya Mouhamadul Habib sax ñu ne looloo tax ñu tuddee ko Seydi Mouhamadul Habib ndax baayam dafa toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax rek moom comme xale ak baayam dégg nga daw rek di daanu ci kaw baayam Seydi Ahmad Tijaani ndeke dëgg na yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam gisu ko baayam dóor ko ne ko xoolal fi ngay aw mu ne sang bi ne ko daahu fa innahu habibi bàyyi ko kii sama soppe kon te nag bés euh, comme Seydina wa Mawlaaya Alxaaji Ali Harazim yonentu ma waxoon Seydi Ahmad Tijaani ne ko ndigam buñ toogee da ngay am kersa ba doo ma mën a wax li nga bëgg a wax doxaleel Harazim suma diggante wala damraayu balaa Harazim dégg nga bés damraayi balaa xaraasim bés xaraasim toog na ñetti fan gisut yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu ne bi feeñu ko mu ne ko ay na xibta anni ya sayidi ko wallahi lawla mahabbatuka fi tijaani maa aytani qat maa ngi lay bu doonutoon ak li nga bëgg Seydi Ahmada Tijaani dégg nga doomu mas gis kon waxuma Cheikh Tidiane di gis bi waaye ku ko bëgg sax da ngay taqoo di gis yonent bi sayid yi wax na ko Mawlaay Cheikh Maam Alaaji Baay wax na ko raaytu rasulallahi nassa bi annani zafirun lahu raaytu rasulallahi jaada bi bugyati raaytu rasulallahi jahran wa yaqazatan bi baariza hal zaaka al mahallu mahalluhu kon Baay dégg nga day moom mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dégg nga xaali ma al Mustafa la aqla yudrikuhu dégg nga wax na ci bayti bu juuf moom sëriñ bi ne bàyyi radiyallahu anhu dafay def tasarruf ci jëmmi Ibrahima Diouf di waxee ci Ibou Diouf sëriñ bi ne moom loolu dégg-déggam la ma ne ko sa dégg-dégg gi ak a baax ndax yow bàyyi la branche waaw loo dégg loolu la billaahi ma ne loo dégg lool la yow yaay kadoo dalaa fay waxuñ la ko ngir jay la ñun ku bëgg ku ku nekkut ci yoon di wax naa ko ci ziyaara maam Ilimaan Ñas ñu bari ci mag yi mi dinaa ngi toog ma ne ñun kuñ jàng ne liggéeyal na bàyyi mi ngi dox ci xidma la Mawlana Cheikh Ibrahim dag ñuy itteel maanaam yow la ñuy topp ñun Maama Laaji la ñuy topp Maama Laaji rek la ñuy topp ñun yaa ngi dégg euh, am na dof bu daan nekk ma Madina Cheikh Ibrahim bi ñuy tabax jumaa ji xeer yi ñuy jóor ak feere ak bant yi dafa am ñuy ñëw léegoo léegi di ci faj seen aajo yi léegoo léegi ñu jël yóbbu bàyyi toog bis rek di tafsir al Quran dégg nga ni ngeen gisee suma waa yi di ko defee sa ñu laa neem waaw bisimilahi dégg nga day soxna ma su may wax ci tudd turu buur waaw dégg nga mu ne dof bi ne hee wuyu ma mu ne bàyyi ko mu ne hee hee wuyu leen ma mu ne Cheikh Ibrahima ne tekk ne nii weey sëggal ko ne déglu leen ko ma ne léegoo-léeg nga naa gis ku naan nii weeram yi loo mën a mën a sëggal weer doo bàyyi de doo bàyyi moom ni mu koy sëggalee ni ko gaañu ni sëggalee da nga ko dañ ci xamee ne da ko bëgg rek waaye doo ko kaalawul na rafet dokk bi dóoral mana la xutba mana la firi alquran dégg nga mana la temp solo li marakis dara doo bàyyi da nga ko bëgg rek kenn du bàyyi moo ñu tëm sama waa hmm. mu ne dof bi ne bàyyi na déglu leen ko la ñuy weeri mu ne yéen yàlla ma fi indi boole maag yéen pour ma dimbale leen defar leen bagage yii ma indi pour ñu defaree ko jumaa jii nga xam ne ëllëg yéen rek lay jëriñ ngeen di ko jël bu ngeen moytuwut yàq gi ngeen di yàq danaa fi jóge dem te dootul leen ma gis gisati mukk ba pare ne bàyyi na ko continuer léew li ñu doon def rek Cheikh Ibrahima moom tam daal di xaj weer yi rek continuer waaw dégg nga day commentaire sax moom bàyyi commentaire sax ci wax ji dafa continuer rek kon lii maam alxaaji wax ne bàyyi moo solu ci Ibrahima Diouf di wax li mu bëgg a wax dëgg la hmm. bal moo solu ci yow sax di wax li mu bëgg a wax dal na yàlla dëgëral la bu baax a baax dégg euh, wax na ba egg ci xaaidun min barin la daa yow ma dañoo am génn góor ci gànn gu ñu wax euh, góor gi sant Sakho Serigne Aliou Sakho defe naa xam ngeen dafa am tagg gum tagg Cheikh Tidiane dafa ma neex dama tax dama koy faral di way alhamdulilah ak cantam da leen azal ba jëm abat kulla shay'in yàlla ko xamal xéewal yu yaatu yu ànd barke mel ni ki taw ci Moustapha ak ñu ñoom yaa rabbi ko saxal gannaaw bu loolu wooyee déglul te teewlu njëriñ xattee tariqa bi laay bëgg a way ci ay xolofal tariqa tijaan amut ñaareel te dootu ko am taaral na lislaam bi leeral xol yi nañ ko teral dégg nga yonoon tuddee ko jagleel Cheikh Tidiane ci lu wér sëriñ bi wax na ko géntul ko ci nelawam ci yeewu lañ ko ko jegel ko xajjal ko rangal koy ngëneele ki may def ko dégg nga euh, fal ko def ko xalifa lii doy na dëggal mu ne kuy lépp yor lépp jël doomam di sëtam sa cosaan teral ko jox ko maqaamaam xat mu nañ ko nangu nangul ne jinneeg malaayika ak nit ñi xamuñ darajaay cheikh yonent bi rek kay koo xam ak suñu borom ki xamal xay isun min balin door di ñëw mu ne bisab keroog la ko ñëpp yi xam tarañ ñoo ko ne mooy xutbul war a xawsuhum luy tàkk moo ko taal cheikhul machaïxi taajul wilaayati barzaxul barazixi kii a xam yàlla kii a mata dégg nga kon xaaidun min barin la daayow bay jamain ñun dañuy tabarruk rek ci jotaay bi moo tax ajjuma bii di ñëw la fukki fan ak ñaar ci muharram tolloog bisi dimaas ji ñu ne Mawlaaya Seydi Ahmad Tijaani génne këram dugg kër alxaaji Ali Harazim ne ko am nga njàpp mu ne ko mayoo mayee sal sang bi ma yeesal mu ne likk ci loxoom bi waaxu ñetti jéegu la def ñetti jéegu mu ne jugee fas kon min karamaati cheikhina pay yu ardin dikk na mu daal di jugee fas egg Màkka ca Arafa Ali Harazim moo nettali mu ne ma gis mbooloo sama kanam munu maa xam fu ñu toll sama gannaaw xaw ma fu ñu toll sama ndeyjoor sama càmmooy sëriñ bi waaxu ma waaxu topp ca kawam sëriñ bi waaxu bañ benn toogu bu mag dégg nga wax na toog ba demee xajut pour ma indi ko mu ne am ñaar ñu taxaw ci càmmoñu toog bi am ñaar ñu taxaw ci ndeyjooru toog bi am ñeenti ñu rang jàkkaarloog toog bi sama sëriñ Ahmada Tijaani ñëw toog ci ñeenti ña juróomeel mu ne ma seen ku beru ma dem ci wetam bi ma demee ci wetam ne ko man am ci la kan mu ne ko xadir mu ne ko xadiram Moussa xadir ma bàyyi waxoon ne xatara bii bi anna daaka xadirun axnaani alxatmu tijaani lwasal man de sama feebar bi ki ma ci wéral sama xaatir bi daf ne ma xadir la waaye man bu dee xadir la it man ne ko maay man man xadir maay nu ma ko man Cheikh Tidiane rek laa maay radiyallahu anhu man Cheikh rek laa faale man Baye Cheikh rek laay topp mu ne ko xadiram Moussa mu ne ko waaw mu ne ko maa sababu haada al jamii jotaay bi lu ko waral mu ne cheikhuka haada sa sëriñ bi Ali Harazim mu ne ma tënk ko bokk ali xaraasim mu ne ñu toog ba yàgg rek sama sëriñ ahmada tijaani toog maa ko gis si sama nagi bët yi ñu seen ñu seen ak leer guy joy joy ca kaw naan nii di ñëw di ñëw ba ci boppam sama sëriñ Seydi Ahmada Tidiane ne tegg sa jëba di wër di wër di wër ba des ak cat sànneeku ci digg gannaaw ga ma ne xoolal sama waay xoolal xoolal sama waay xool ko Ali Harazim mu ne kaala googu dañu ma di ko gis ci boppam sëriñ bi ba mu génnaat yi radiyallahu anhu Seydi Ahmad Tijaan radiyallahu anhu Cheikh Tijaan mu ne ñu toog rek ñu dégg benn kàddu ñu dégg genn kàddu ndeke jibril la alayhi salaam jibril na rabbukum yuqri'ukum salaama daal di wax la mu wax rek ni inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yankutu ala nafsihi wa nafa bima aada alayhi allah fasnu'tihi ajran azima ndeke yonentu moo toog sallallahu alayhi wa sallam ci toog bi dégg nga ndeysaan Aboubacar dégg ak euh, Seydina Omar taxawee nii Ali ak Seydina Ousmane taxawee nii dégg nga ñi nga xam ne ñooy ulul azmi min rusuli di Seydina Ibrahim Seydina Nuh Seydina dégg nga Moussa Seydina Isa ñoo toog dégg nga sayidi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal di o mawlaana sayidi Ahmad moom jox daal di oo yonent yàlla nuuxun ne ko yaa nuux yaa abal anbiya inni ixtartu wa jaaltu ahmada tijaani xalifatan lii yow nuux yow bàyyi yonent yi maa tànn sama sët bi ahmada tijaani pour def ko sama xalifa nuux ne ko qabiltu wa raditu mu ne ibrahim mu ne qabiltu wa raditu nu muusa mu ne qabiltu wa raditu isa mu ne qabiltu wa raditu yonent yi yeeg arwa awliya u yeeg gaa yi gaa yi yéen ñi ñëpp ñun ñi ñëpp ngeen nekkoon ca jotaay ba waaw ñun ñi ñëpp ñu naan qabil naa a radina ya rasulallah qabil naa wa radina ya rasulallah nangu nañ a Tidiane muy suñ sëriñ di suñu njiit nangu nañ a Tidiane muy suñ sëriñ di suñu njiit ah. ci saa rek jotaay ba daal di jeex Cheikh Tidiane waaxu utali Seydi yow Mawlaay Alxaaji Ali Harazim ne xaat nit ki ca ba ne ko gëmmal mu gëm Ali Harazim ne ma xool gis ne ñu ngi waat faas ci tënku gu gàtt tënku gu gis nga ñetti jéegu yooyu yow taalibe tijaan bi bët bu set nga waxu lawhu la sa lazim bi lawhu la laam bi lazim la waaw gi wasifa la xaagi xadaratul jumaa la waxu moo tax bàyyi nee na am lu kullul wujudi fi kafi shay dégg nga nit ñi yëpp seen mbir yi mi ngi ci loxol Mawlana maam alaaji wax na ko seydi moolaay alxaaj maam alxaaji muntaqa nee na cheikh ibrahima anhu yëfam dafa gaaw parce que mooy seydi ahmada tijaan benn géwélu malien tiim na ko ci mali di ko tagg di ko tagg naan ko yow dafa mel ni boo soxlaa dara ci yàlla da ngay wax ak moom téléphone rek ne ko allo mu ne la wii nga ne ko nangam laa bëgg mu teewal ko bàyyi na nii weer yi ko xool ko ci cat weer ne ko gën naa gaaw loolu billaahi gën naa gaaw loolu kon cheikhul islam maulana alhaaji ibrahim radiallahu anhu mi nga xam ne jegeel nañu yëf yi ne moom mooy sayidi ahmada tidiane ndax cheikh tidiane radiallahu anhu kullu ma faada wa baraza min zaat sayidil wujud la ñuy wax tatalaqaaha zawatul anbiya wa kullu ma faada wa baraza min zawatil anbiya tatalaqaahu zaati wa minni yatafarraqu ila jamii alxalqi min nashiati alalami ila nafxi fi suuf kon moom moomu Mawlaana Cheikh Ibrahim bu ñëwee rek egg si rek ne qad faatani nubuwwatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sëriñ bi wax na dëgg Mawlaay Cheikh Mawlaaji nee na bàyyi buñ sañoon wax ne romb na qutbaan na ko ah kay moo ne qad faatani nubuwwatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon lu dul ak nubuwwatu Mawlaana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu egg na ci et mu continuer di bëggee Saalum Saalum moom di wax ak nit naan ko pourtant man Saalum Saalum laa te Saalum Saalum ñu ngi ko bind ci salima salima di firi mucc na mucc na ñi xam ñëpp moo leen jàngal ñu jub ñëpp moo leen jubal ñi gindeeku ñëpp moo leen xawale ci yoon bàyyi liñ lay wax nañu yow rek la topp te yow rek lañ bëgg ku yaakaar ne dañ koo bëggit dañ koo gis si yow rek muy yëngatu dégg maa ngi wax ne taalibe bàyyi bu bëgg bàyyi daram bi tooke la dama koy wax toujours ci suñ jotaay ngir lan taalibe Baay yëpp ànd bëgg Baay koo gis rek jàpp ko muy Baay bëgg ko ànd ak moom bëgg ko ànd ak moom waaye tay li xew da nga gis ñoo xam ne dañuy sampalante ay pion ba pare na ay taalibe Cheikh Ibrahima Niass lan radiyallahu anhu xoolal Cheikh Tidiane inna lana martabata tanahat fi luluwi ila haddin yuhramu dikruhu wa ifshauhu safiba mu ne min xaasiyati tilka almartabati dégg nga anna man lam yuxaafid ala tagyiri xawaatiri asxaabina yuaddu min alhaaliki ku moytuwut di tilimal xaatarab suma taalibe danañ la ba wax ci kàmbakal kànde nañ bàyyi xel ci loolu ñun mbokki taalibe nañ bëggante ngir bàyyi nañ ànd ngir bàyyi nañ defaralante suturalante ngir Mawlana Cheikh Ibrahim ndax bàyyi moo ku bëri sutura gis nga buñ ne woon nañ conférence waxtaan ci liñ def bàyyi ci lu ñaaw oh. da ngeen dégg lu doy ba sonn da ngeen dégg lu naqari da ngeen dégg lu ñaaw da ngeen gis ku jooy ba caari da ngeen gis parce que ko ko waaye la tadribu lay wax abadan la tashtumu abadan wa in duribtum fa sabran man nag dama koy firee ne su ngeen mënee muñ ñu ne ko ku ñu laal ñun mën nañoo muñ waaye ku la laal yow duñ ko seetaan bàyyi euh, dafa am dafa am euh, dafa am benn xikaaya boo xam ne bi ngay wax ne léegoo léeg dañ miin dara di la dal sax nga naan Cheikhu Tidiane dafa am benn paa dafa dugg ci biir benn teen di am lu muy génnee lu fa daan woon mu ne bi ñu koy génnee dem ba jël ko ñi di ko root moom pour mu génn moom góor gi biñ koy root muy génn bay waaj a egg si pindi teen bi rek buum gi dagg bu daggee nu muy def xam nga dafay dellu ci biir moom mii dem mu naan yaa cheikh ka ca kaw mu naan ko tijaani dafa egg ba ci biir teen bi teg toog dara dara dara dara sama waa ji Cheikh ba Tijaani nga xam ne mboolem lu ma wax ci Cheikh Tidiane moom laa koy gërëmee dégg nga dafay génn bés ñuy dem ci benn conférence ñu sol rajo wax tal dafa génn rek benn jigéen gu doon waas jënam pour togg añ paasintóor yi ndaw si ne cay rek mu dal ci dara ji ndaw si ne yaa Cheikh Tidiane mu ne ko desub nga xëppaat ma desub nga xëppaat ma ko mu ne ko ndax desub nga xëppaat ma ko kon maa ngi jégalu bu baax ci guddal gi ndax du teggi hin ci kanam sëriñ bi wax dëgg yàlla du teggi hin ci kanam sëriñ bi euh, ndax ñoom ñun ñoom ñun ci ñoom la ñuy jàngee wax dëgg yàlla waaye suñu mbokkam taalibe avant tout waaye suñu soxna di suñu séet suñu séet euh, sëriñ bi man dama ànd ak sama soxna yi Khadija jógee Gambie sama a bi mu ngi ne la topp boo xoolee jigéen ñi ki fi gën a rafet rek ah wala mbaa soxna sëriñ bi nekk fi ah, man maa ngi kii de maa ngi maa ngi def loo ëpp de kon bu dul soxna sëriñ ku fi gën a rafet rek moom mi ngi toog noonu Seyda Khadija waaw Baye waxoon na ko bi muy wax ci maqaamam Cheikh Tidiane daf ne fa xayru sahbi qad taala alayhi cheikhu ibrahim daal di seet ci gars yi moo tax bu duwut soxnaay sëriñ bi bokk dégg nga waaye soxna Seyda Khadijatu soxna suma xarit Cheikh Mouhamad Nazir nii Cheikh Jaloore dafa bokkoon ci ñun dara jaalee bés seen kóllëre ñoom ñaar dafa yàgg waaye doomi imam Xasan Cissé la ko nit ñi di wax ngir bëgg guñ bëgg imam ñu koo xam ne ñun bañ koy xam balaa muy nekk suñu soxna sax jeex takk ci baay bëgg ko moom moo tax ñu tànn ko ngir bëgg giñ bëgg baay ñun Cheikh Jaloore ànd ak moom ci bëgg bàyyi googu daan ànd ak moom du dugg ci tool yi ci àll bi maam Elimaan mi ngi toogoon fii seen dëkk ca kër ma dikke gaa ñi ànd nañ fa ba sonn di ànd di dem fu ne xam naa ne daal Mali rek la dem foo xam ne bu ma ko ne Seydaa nañ demaat mu ne ma boobu moom dama koy seetaat ma dégg nga boole ko ci ñi mu koy tuddee waxtu ne te Cheikh Jaloore xam naa ko xam goo xam ne ku rek dafa naw sa mbëggeel ci Cheikh Ibrahima ndax ñu ngi koy ñaanal yàlla Seydaa Xadimu mu mi ngi kontaan ci yow mi ngi xeesal kóllëreem ak yow mi ngi lay wax ne bu fekkoon ne xam na ko mbooleem lu ñu togg ak dégg nga chaise yuñ fi rangaleeg dégg yi tax nit ñi di dégg li ñuy jox sëriñ bi li nga xam ne dañ ko ko war a jox jéegu bu mu jéegu maam alaaji Muntaxa jéegu bu mu jéegu jugee Kawlax ñëw fii dañ ko ko waroon na fay buy dellu encore mhm. jéegu bu mu jéegu ñu fay ngir lim fi def nii ngir lim fi wax nii ah, mu ne moom su ko amoon mooy def lépp ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant waaye ci làmmañu sëriñam mooy Cheikh Mouhamad Nazir dégg ñu ngi di ñaan yàlla yàlla ko yàgg def muy bàyyi rek di bàyyi rek di bàyyi rek asalaamaaleykum